jamaa njawara waa njawara kaali ya naa ne xol yi commencé nañoo sedd ya karna naa ne dafay sedd ba ba sedd kon bu ñu toogee tey oustaz ne bàyyi ñes fu mu dugg rek soppi jëri làmp yi def ko sigar sant la parce que ñun xam-xam bu sama yaay nettali na ma ne ma Cheikh Ibrahima Niass da daan ñëw kër maam Doudou Badiane ci maam Assou yaay la ñoom ñaari ñu koy seet si ñun ñu dem ba nekk ay taalibe Cheikh Ibrahima Niass te budul loolu tamit jàng nañ wala dégg nañ ci suñuy baay bu ñu jumaa ji biñ koy dëgg taawu ma taawu maam taawu Cheikh Ibrahima Niass maam Alaaji Alaaji Abdoulaye Niass alxalifa moom moo ko dëgg kon réew bii tànk Cheikh Ibrahima Niass dox na bi moo tax kon foofu géew bi changé moo tax jiw bi changé dafay changé ba kaw wallahi kontaan nañ gën nañoo kontaan wàccee ngeen xam-xam yal na leen yàlla yokk sutura yal na yàlla yokk seen daraja lii rek ngeen bëggoon te lii nga doon jihaat ci jamono te commencé na koo am te ñu wax ne suñuy yaay nañ jël seen doom yi dugal leen ñu jàng قيس سعدي الهاشمي الأبدعي الذي خيار من خيار صلوات الله وسلامه عليه إخوة المستمعين أو مستمعين كلا سكان الجولة الكار والحاضرين الضيوف والرحمن من أماكن شتى إن هذا اليوم إن دل على شيء فإنما يدل على مجاهد كبير لا همة له إلى التعليم و... و... و... إلى التعليم وإرشاد المسلمين إلى سبيل الله مولانا الشيخ إبراهيم رضي الله عنه bokk yi bokk jullit yi ñu ngi sant yàlla di النبي صلى الله عليه وسلم بي wa sallam nii rek la mën a mel Mawlana Cheikh Ibrahima radiyallahu anhu ay mbiram du taxaw nag yàlla mu gëstu taalibe ñu ne nag feeg jotu leen moom bu leen taxaw kon taalibe Cheikh Ibrahima Niass mu ngi dafa def Cheikh Ibrahima Niass ñu ne doon def bi li misli hada falyamalil aamilun kuy def rek nga def lu mel ne lawla zalika laa yuaddi li manfaa mën a mel ndax bàyyam dafa defoon ci moom yitte gis nga élément moo koy indi xam nga sama jëm moo ci soor ci tuuti ji bi ma koy indi baax wa taala ko doole mu ne ma kii de naa ko mu jàngi bu nekk mbir mi daal tëna ma indi ko fii damaa bëgg su fekkee ne nii tënal la laa dem nga jàngale foo ma ma dóoral la ma ne ay dóor bi am da bu soobee yàlla ma tukk ñaan yàlla nag mais yàlla kii yàlla na ma ci may ndam barke Mawlana Cheikh Ibrahima Niass nam Cheikh Ibrahima Niass doon def taalibe de yàlla na ma ko may ci kii loolu laa waxoon oh, Cheikh Ibrahima Niass ku mu fekk nga soxal ku tasee yow da nga doylu man moom misaal la ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าคนกินจะฟังน้อย dañ koy wax ne ko am yow Thank <laughs> you. akbar la mën a demee nag ndax détails yi dafa am luñ xamul Babacar nee na ah, nit ki lan xamul du ko mën a gaaw a jiital a doom ya mu bare ma ne Muxtaar mu bare ma ne ko Cheikh nag mu naa ne ko lan ma doon wax kéem bi mooy xale yi waaye lu baax nag ma cay jiital sama xale yi ba pare ba ma dem ba bàyyi ko ba ne ko doon leen ma maa ngi dem ma ñese pour mbir moo soxee ko waaw ñu ngi sant yàlla ma gàttal મે દવાખ પ્રેતસ્ને આ કે મને શેર માની ઓર મે દિર જંગલ કાલે નખ પી જો આ તુ મે અપે જામલો ન જાંતી કે જો લા દે અલી ન દીજે કે જામલો કુ તેલા વાયને ફ્રે વા દી મોન નાચ ઇબ્રાહીમ યસરા દેલા કુ કુ રનો قبة الزمان وحيد دهره من انتفع به الباقي وقال سقانا الله من حوله بأحوض أوسع الأواني وجعلنا بجواني بجهة الجهاد رضي الله عنه السلام عليكم ورحمة الله